lépp dara bañ def dinañu woo yëgal te yëg nañu daal faale nañu eleen bu def dara te woowuñu ñu koy ñaanal nag fi mu bëgg a jot yal ko ba ay millions yi millions yi millions mënuñu koy financé ci barke sëñ Fallou sama xol nag moo sedd ndax eleen sama doom la sama lépp la kon nag su defee lu baax wax ko jéegal nii nag doon wax moo yor baayo yi moo yor jirim kenn ne jooyu barki sëriñ Fall Mbacké yal na ko defal jàmm faama duñ la bàyyi nga demee noonu tey jii bëgg nañoo eneen bëgg na yaatal euh, nit ñi bu yem ci ay financement donc eneen bëgg na indi yeneen projet tey jii boo ko digal boo ko doon ci lan nga ko bëgg ku am la ku bëgg ku bëgg koñ bi la bëgg bëgg bëgg eneen amul kenn ku mu bañ fii ay ndujum ak lépp la ñu daan indil lekk dara bañ man nag suma sañoon yal na ko yàlla defal ko jàmm boo xamante ne ñu di ko dégg ca kaw ci barke Sëriñ Fallou Mbacké ndax eneen lekkul dara bañ lu nekk nag mën na koo am ndax yéene nañu ñu nit ñu fu ñu awloo ñu aw fa ci barke Sëriñ Fallou Mbacké yal na ko yàlla defal jàmm kontaan naa maa koy ñaanal li muy wóotu yal na ko yàlla defal ci barke Sëriñ Fallou Mbacké man damaa kontaan ba mënuma Adja Etienne Thiaw macha allah nga ñëw gunge sa doom sa ñees ci ci nga xamante ni mooy Etienne euh, Thiaw mu nag population Léona parce que ñëpp xam nañ ni Hélène comme femme ni mu ko waxee léegi mos a lekk dara baal fañ ñu waa Léona depuis bi mu nekkee Mboro en passant par Kaolack pour ko affecté ku ne waa Léona yëg nañ ni affecté nañ ko fii nii ndax lu mu bu ñëwee ñu bokk ak ñun. yéen yan ñu leen di seetaan à maa ngi leen nag ba may tudd Ami Sène ñoo toog yaayam di tudd Etienne Thiaw mais di papaam ndax ak lu ko am la ko gërëme ndeyam ak baayam. ayam lu mu am tey am Sénégal ak ak Eken Toll di gërëm rakkam yi ñoom Mayta di gërëm jabaram ji di Sosofil Sosofil nekk na ci koñ bi xeexu fu loolu bu ko Elen yow doon mu dem Elen nag moom mënuma koo gërëm ndax Elen lépp ko bëgg bëgg yëpp ndax Elen gis tax ñu fiy jaar moo bay mooy pare élève day pare ba ñu élève dafa dof te élève lu baax la bëgg bëgg na koñ bi bëgg na waa koñ bi bëgg na ñëpp ñëpp bëgg ko man nag bàjjenu gox laa ci bi hôpital bi ah poste de santé Léona Nord dëkk Léona Sud élève nag lu muy def woom maam ñi fi nekk ñëpp daanaka ku ma ci magul ma ko waaye ayeen jaral na ma ko ayeen lu mu bëgg fu bëgg a yegg yal na ko fa yàlla yeggal ak yonent ba ak sëñ Babacar Si ma yaakaar ayeen caw yal naa yàlla defal jàmm moo bëgg ren yal na ko am déwén lu ko ëpp looy def boole nga ma ja boole ci sama njaboot boole ci waa kër gi ay man la mère Khady Dieye maa dëkk fii ci koñ bi di yaay xale yi di bàjjan xale yi di màggi mag ñi di la di di ma jëf paala ko léemoo barke sëñ Muntaxa Mbàkke eleen foo bëgg a egg yal na la fa yàlla eggal ndax nee nañ kuy def lu baax bu ñëpp toogee danga koo war a wax eleen dama màcc sama buntu kër gi mbaarum sàkket di defi yendoog man eleen toog ci buntu këram di ma woon xam ne man liggéeykat rek laa ndax masala nekkoon di liggéey ma feebare fa ñëw ci kër gi bi ma ma samp sama taabal ci buntu kër gi dem ne ma jee na ma maanaam mu ne ma yow ku xool xam ne liggéeykat la ma ne ko dëgg la caw loolu ku baax a koy xool ci nit mu dem wuti set wuti bantam maa ngi lay ñaanal yal na nga yóbbu sa goro yi mag sa goro bi mag ak sa yaay barki yal na nga boole sa yaay su ma xëyee damay toog di jaay ba ngoon jot ma waa ko dugg ci sama biir kër kon Hélène yemul ci financement doomu ak waa koñ bi nag Hélène financement dem na ba caacaw waa caacaw yi ngi toog di dégg fajar la yeewu takk seen bisaab yi di ko yóbbu marché tey bu ñu toogee bay jaay leneen Hélène nii moo tax dégg nit bu la defalee lu baax danga koy wax te yàlla rek tax Hélène ɗum ko ame kenn ku nekk doo dem marché naa boo demee marché jëlal la fa kenn ku nekk elam da lay jox nga dugal ci sa frigo di toog dégg ngeen wax ndax gis ngeen elam nii man kenn jarolu ma toog di wax loo xamante ne nekkul elam moo ma ko jaral ci biti di wax suba ba man nga ak ku ma xam ak ku ma ak ku ma mu na seetaanuma benn la jot la yàlla fay yal la yàlla la yàlla eggale salaamaaleykum waa Sénégal salaamaaleykum waa région de Diourbel salaamaaleykum waa département de Mbacké salaamaaleykum sama yaay sama papa salaamaaleykum jigéen jàmbaar yi taxaw fii salaamaaleykum Eh, sama ak développement yi nekk ak man man la Hélène Véronique Thiaw di actrice de développement fii ci Bambey eh, ko ñor di dëkk bi di dëkk bi ko doyal parce que def na ay ati at may góorgóorlu di jàppale ay jigéen jàppale ay jigéen yooyu naa ci ay conseillers yu bëri yoo xam ne ay actrices de développement lañ nekk ci Sénégal moo tax nag ñu ko commencé yàkkamtiw ma parce que dama ne ali ma soxla ñoragul waaye fii ñu toll nii dafa mel ni ñor na. que dama jàkkaarloo ak ay jigéen jàmbaar ci biir Bambey bi nga xam ne fi laa juddoo fi laa màggee gis fi ay jigéen yoo xam ne ay jàmbaar ma xam ne nii nag su ma ànd ay actrice de développement yu mel ni Ndeye Fatou actrice de développement yu mel ni Yacine Niang actrice de développement yu mel ni may Maymouna madame Dieng sama xol day sedd ah tey jii nii sama xol sedd na doublement parce que ci région bi ñu nekk. ci la ministre de la femme nekk muy madame Fatou Diané Gueye ma di ko gërëm di ko sant ci lépp loo xam ne ni sumb naa ko fii dugal na ci loxoom naam naam ñëwagul waaye bu loxoom ñëwee ak ndawam su ñëwee day mel ni ñëw na muy suñu sœur bu baax boo xam ne nii li ko ñor mooy def développement développement ci ñu déggul français dafa nekk suqaleku suqaleku nag mooy suqale ku ci sa biir kër sippale ku ci sa biir koñ sippale wu aussi ah ci Sénégal parce que loolu moo tax nag ah di ma duggalanteeg jigéen ñi bàyyiwuma leen parce que naa ne leen moom yéen a ko moom lu ma am yéen a ko am te lu ma am dama koy séddoo ak yéen ba mu jeex tàkk loolu nag moo tax ma ànd ak ay femmes yoo xam ne nii dañoo taxaw temm. ñu ne ma loolu dëgg la Bambey daf ko soxla Sénégal daf ko soxla dëgg nag mooy ku ñu naam président Macky Sall moom lay waxal nag naam sunu président bi jàmbaar la lay mag la ñu koy sant di ko gërëm ci lépp Sénégal bu lépp moo tax lu bari gis nañ ko waaye man tey mën naa wax ne maa ngi plus de 1000 femmes yoo xam ne nii topp nañ sama ginnaaw te bëggoon naa ñu ma dooleel ñu ma dooleel nag doonul dara lu dul li joxe muy raam di raam di raam ba ak si ci ñun parce que ay jigéen jàmbaar la fi nekk ñoo xam ne suñu xëyee suba ba ngoon jot ñu ngi daw seen njaboot yi loolu nag tax man aw ma xaaji aw seet dama leen ne képp koo xam ne gëm nga boppam. na ñëw ñu seet nan la ñuy def ñu financé la ngay gis sa bopp di gis sa bopp di gis sa bopp waaye nag financement du doy mun nañoo wax day tuuti waaw parce que bu activité agrandiro ma activité bi bu yokkee financement daa war foofu kon fii ñu toll jigéen ñi ngeen gis ñu toog kenn ku ci nekk jot na financement d'accord waaye financement bi mooy financement bi nga xam ne dañu daa jóge kaw kon président Macky Sall maa ngi lay woo man taw fii ci Bambey ngeen dooleel ñu. jigéen ñi soxla nañ lu tax jigéen ñi soxla nañ ko parce que jigéen ñi ñoom ñoo bokkul neexul dama koo yàgg ba noppi waaye loolu dëgg na moo tax nag sama jigéen ñi toog dooleel leen ci lépp loo xam ne nii nekk muy formation muy financement ci lépp loo xam ne mën nañ ci seen bopp nee nañu ñoom nañ leen teg ci yoon bi ñu seet li ñuy nappe loolu lañ ma wax te looloo tax ma taxaw fii di wax bëgg nañu ñu dooleel ñu dama ciy delluwaat bëgg nañu ñu dooleel ñu ngi demal suñu ci bi ñu am ñu toj tax président Macky Sall say ak man ànd ak sama xarit yi ak sama njaboot ànd ak sama waa Bambey

sama wolof leerul noonu. waaye bëggoon naa leen wax ne octobre rose bi fan yi ñëwee kenn ku nekk takkal naa la mel nii loolu nag am na ñu xam signification bi am na ñu ko xamoon mais dama bëgg a taxaw fii wax leen takk na ci mois d' maanaam weeru octobre bi jàppale na ñaanal na képp koo xam ne nii yoo yor na feebar yooyu nga xam ne dañ ko wax cancer du col de l'utérus ak cancer du sein. loolu moo tax ñun tam ñu ànd ak ñëpp ñi nga xam ne nii ñu ngi koy takk di bëgg a ñaanal ñoom en tant que jigéen tey nag euh, beneen côté bi nga xam ne nii bëggoon naa ko wax parce que dëgg-dëgg yi ma ko wax bëri na ma leen ma tuuti ma leen ma tuuti kii ma toog nii dama bëgg a gërëm particulièrement sama sœur mbooloo mi danga koy wax toujours actrice de développement la 8 li ma digal laa def ànd ak jéem a seet lu ñuy suqalee jigéen léegi nag bi ñu tolloo ba fii moom gis na ne sonn naa waaye daf jàppale jàppale yoo xam ne nii doye ndax jàppale bi xeeb naa ko naa mi ngi ñëw mais xeeb naa ko bëggoon naa ñu yokk ko trop loolu moo tax soo leen seetloo ñu toog

Boleh, wala ñu té ñu ñina ko mom fogu tan ni leen ko lolu tollu wax na ko ma mi day néna ah leen de deug de bo xoma won ni ñoko dété programme mané ko jigéen ñi li ñu soxlu bari na waye ku nekk ak li mu am lo lay mayé waye nak xébu ma ko dé té pas di ko jël ñu may leen boo waa doon koo xam ne day doo waa loolu moo tax yéen a ko moom waaye dinañ ko teg ci bi nga xam ne mooy Diegane mu nekk ci koñ bi moom naa def présidente parce que attan na ko moo yore lekkat bi fi mu toll nii ñun mooy du leen ay million ba nekk dégg naa waaye lekkat bi ngeen ci boole saabu yi yi ak omo yi nga xam ne honorable Fatou Seye da koy indi su ko defee yéen yéenee xool ni ngeen di suqale ko bu ngeen ko defee leneen ñëwaat leneen ñëwaat parce que nag honorable yi premier pas la kon premier pas la deuxième day am waxal ma ko jërëjëf sama xol sedd na ci moom yéen ñi mu yónni ndaw yéen itam dox leen wax jàmm yàlla leen ko yàlla fay merci beaucoup lii laa amoon lu may wax merci